léegi loolu moo tax ma bëgg noob noob noob bi ngeen di defar di ko jox ñun ñuy lekk bi bi kan di def sëriñ si man noob moom ku fi ñëw mu waxtaan ci ak moom noob euh. bi ñuy jox di ko jox ñun ñi di lekk mm-hmm. ak li nga wax ni léegi c'est dangereux waaw xam nga nopp dinaa ci dinaa ci dinaa ci xaw leeral tuuti c'est dangereux xam nga nopp nee naa la gis nga sëñ bi sa liggéey boo ci amee caay-caay waaw jarul ngay jox nit ne ko demal nga naan wala demal nga demal nga def ci lekk lépp mën nga ko def ci ay tur lépp chiffre la hmm. wallahi alazim li nga war a jox nit ki ci nopp mu naan ko waaw wala mu def ko ci lekk hmm. mën nga calculer turam ci chiffre bi ma la waxoon mu jàpp turu yàlla nga daal di koy de boole seeni rawxaan yow da nga def noob yow bu baax noob baaxul non noob baaxul ci ci ban côté. waaw parce que tey da ngay gis koo xam ne daf naan la. sama jabar ji damaa sentir ne léegi daal vraiment. Hmm. bëggatuma. Hmm. te def naa ci moom ay millions. Hmm. mi ngi may waaj woon ginnaaw. nga dem nopp ko ndaw sa toppaat ko ba ba dootul xamante fu mu jëm. wala góor boo xam ni jabaram ji mooy dem noobal ma ko lu ma ko laaj mu jox ma ko. jigéen dem jigéen. mu dem ci ku góor ñu nopp ko mu dem ci góor ki lu mu laaj mu jox ko ko mm-hmm. ku góor ki tàqali ko ay mba bokkam du jox man gis naa ñoo xam ne sax boo soxlaa danañ naa la demal sama jabar na sama jabar moo mooy joxe waaw loolu yëpp xeetu noob la waaw xam nga ay diw nopp naa ko waaye nopp ma te dama koo bëgg a takk ngeen mm. ba mu ba mu takk ko ba mu ko àq la noob da ngeen koy def loolu yéen xam nga dañuy def noob ba pare di jox nit ñuy lekk waaw boo ma boo ma paree rek dinaa la leeral ba pare naa ñëwal nopp ki ñu koy def dafa am koo xamante ni bii dafa nekk ak soxnaam mhm. yàlla boole seeni xol ñu bëggante waaw yaa may dégg ñu bëggante ñu bëggante laa la wax yàlla boole seeni xol ñu bëggante je suis entièrement d'accord waaw léegi soo demee mm. ba jamono waaw xew seytaane fëkk ko fëkk kan fëkk fëkk ku jigéen ki wala mu fëkk ku góor ki rek lenn ci ñoom ñaar rek waaw ak kum ci mën a doon bu la fëkkee yàlla mi ñu bind sàkk ñu moo ne jigéen worma bi ma ko defal ak sutura bi ma ko defal amut lenn loo xamante ni bii mën na ko mën na ko yàqal waaye ci kaw ak jigéen ñi ko xam noob gi am na koo xamante ni bi dafa nekk ci sëyam ba muy ngorontooñ moom booba ku ci nekk benn tubéy nga am ak benn chemise ngeen di daanoo ko jóg mm-hmm. mu lay muñal guddeeg bëccëg ba yàlla def sëy am seen diggante yeen ñaar mm-hmm. yàlla bette leen wërsëg ci kaw wërsëg bi leen bettee am na koo xamante ne bii ma nga jokkoon ba wala am na koo xam ne ma nga ci biir famille ba mm-hmm. d'accordul jàpp ne yàlla moom ay mbiram du hasard mu ne xaaral ma dem yàqi mun na def dëddale ba cofeel ba amoon day jeex waaw cofeel woo bu amee jeex mu leer na yow ci sa bopp ñii ñi ngi woon ci sa pendant des années wala ñu ngi woon pendant années yoo xamante ne bi ñu ngi nekk seen projet mariage. nga xool xam ne kii mbiru dëdd la wala yàq loxo ngi ci biir. waaw nooy def doo nopp. damay wuti ñaan waaw. da leen di boolewaat. waaw d' naa ci loolu. ok waaye xam nga lan laa d' accord ngeen di war a bàyyi. Ah. saytaane ñëw parce que yenn saa yi du doon saytaane. Mhm. yenn saa yi mën ngaa nekk ak nit ngeen bëggante lool. ma nekk ak sama jabar wala ma nekk ak sama copine. Mhm. ñu bëggante lool bay wax ay waxi mariage. Mhm. moom ci wàllu boppam mu jékki-jékki gis ci man ay jikko yu nga xam ne xamloo ma ko woon loolu keroog bu ma ko takkee. mooy changement. may commencé changer. mu bett ma may doxaan. mu gis sama téléphone ba envoyé ay message mbëggeel gi day wàññeeku ci moom. mbëggeel gi day dee. loolu lay def muy reculer di reculer. léegi bu ñëwee ci yow wax na sama jabar dafa ma bëggoon lool. nga ah, mais seytaane ma dugg ci diggante bi nga jàpp ne seytaane la alors que ndaw si am na lu ma gis lu rey mbëggeel la. waaw xam nga ñaari ndaw dafa bëgg rëcc daw. mais yéen da ngeen ko waaw xam nga fépp fuy doomu aadama di tasee sëy man duma ko fekk. sëy bu lë am lëxmat lëxmat nag man. gu ma ci bu ñu deetul nag. bu ndaw si nobatul jëkkër ji. waaw déglu ma tuuti. waaw maanaam nopp ak ñàkk nopp bu fa amatul rek am na luy ñuul ci soow mi. déedéet maanaam ñàkk mbëggeel bu demee ba am. amatul waaw léegi bu amatul lan moo tax amatul. mais am na lu loolu ngay posé wu question. mais ndaw si ba ma ko doxaan dafa normal. mais ba ma ko takkee waaw maa ngi ñëw bu may tegal reer dafa naan ma reer baa waaw da koy bu ma dama la wax ma ni la am na ci benn vidéo bu ma ci ma ni la ñeenti jigéen ñii ku leen di takk. waaw. Uh-huh. Uh-huh. góor googu dana nekk ci souffrance. waaw. dama wax saa su nekk ma ne jigéen joo xamante ni bii fitu gaynde lay yor. Mm-hmm. boo waxee mu taxaw tiim la. waaw bu lay jox reer da la koy puus uh-huh. boo waxee mu tàccu la uh-huh. boo amee ful la ba fa xam ne boo ko àndilee sa kër du la tooñ voilà léegi nag ci loolu yow tey bu nu bu demee noonu tey ndaw si bu ñëwee ci yow yow da nga da nga koy nopp non man de da ngay nopp góor gi ba waaw man waaw man de da nga ne li nga wax am na solo da ne doo man kay soo boo ma pare doo fekk fi ñu tas loolu nga wax. waaw waaye yow yëg na suñu borom nee na sëy dagan na tas dagan na. tas dagan na. ah waaye nag nee na dafa ne. fépp fuy tas di am malaaka yërmande du fa wàcc. non ça dépend. waaw waa may ma maa ngi ñëw. xam nga bu fekkee dañuy poser question faw ñu leeral tuuti. na ñëw doxalal ko. dafa am koo xamante ne bi dama ne mën na nekk mbiru def-def. foofu ba dépassé nañ ko. yaa ngi dégg. Mm-hmm. am na koo xamante ne bii mën na dem ba sentiment bi mu amoon ci borom këram amatu ko. waaw kooku ku ne day dem mooy mooy jur jàmm. ku ne dem mooy jur jàmm. Mm-hmm. ci ku ndaw si ak ci ku góor ki mm-hmm. léegi nag am na koo xamante ne bii dafay forcé ni kut ko kut moom lii du dem day dem wu ci ci lu mu safal wala lu mu xoromee ci rëm. yaa ngi may dégg. waaw ma wax léegi nga ne ma bu dee yéen la ma ne ko man. àddina ak may seetaan ñi may jëflanteel xam nañ mhm. man kenn du ma ci teg pression bu ma mënul parce que ñu ci ba dañ ma da nga xaw a metti ci ci wàllu ñaan man li mën a ne laa lay wax soit que nga gëm ko soit que nga ñàkk koo gëm kooku on s'en fout mhm. waaye xam nga la laa mhm. dund bukki guddi laay génn ku may laaj ma nekk sama kër ñu naan <laughs> ma ne ku may laaj nekk ma fi. aw ma temps boobu. non d' accord naa. waaw man xam naa la nee naa la yow. waaw waaw man man je ne parle pas en particulier. moi je xam nga ma waaye ñi ñuy seetaan. en général laay wax waaw ñi ñuy seetaan. waaw xamuñu ma yow xam nañ kon wax ma yaay kan ci loolu. waaw man. lépp tey yow tey man su ma ñëwoon tey. Mhm. andi jigéen joo xam ni man kii damaa bëgg a euh, dama ko bëgg a takk. Mhm. te xam naa ne man ndaw su nobu ma. Mhm. ma ñëw fay la dix millions. di ma liggéeyal ndaw si ba mu sëyee ak man. du ko def. yow doo ko def. xulil. waaw ah, yow doo ko def maanaam dañ ne booy parce que da ngaa suur waaw maa ñëw démb waaw kay parce que alxuraan daf ne xulil xaq walaw kaana murran da dangay wax dëgg donte dañuy teg paaka sa put cheikh bu doon yooyu may yooyu mooy kii kon kenn waxatu ko waaye xam nga lan laay xalaat mm-hmm. am naa soxna am naa njaboot mm-hmm. maanaam mbëggeel balaa moo neex faw mu naturel mooy dëgg yaa ngi dégg ci lay centré sax ci lay fier sama bopp waaw waaye dalay lenn soo demee ca njabaatkat bi mu jox la butéel bu butéel bi jeexee ngeen nekkaat ci jàmm butéel bi ngeen ne ngeen nekkaat ci giita ŋaas waaw kooku du fier sax waaye nag ci biir sëy l'islam may na la yow sa bopp ngir téye sa soxla bu dee ku góor ko waaw kay xam nga tey li nga wax man nangu naa tey man ma bëgg a bëgganteeg sama man sëy ñu ngi sëy ñu nobante ñun ñaar ñëpp mhm. ñu dem ànd sax ñun ñaar ñëw ci sëñ Abdou Xafour ne ko ñagal ñu suñu sëy bi ba seytaane bu mu ci dugg ba noon bu ñu mën a dara. la je suis entièrement d' accord. loolu loolu loolu man dama koy def saa su waaw moo tax ma wax la léegi man man noot laa bëgg ngeen baat nopp. parce que nopp gi yéen yéen ci <laughs> nopp lu xaalis bu yow sa xaalis bi nga am yëpp ci nopp nga ko amee wax nañ ma ko waaw ak yeneen ak yeneen dinaa ñëw ci yooyu non nopp gi laa bëgg ngeen bakoo parce que nopp c' est injuste. c' injuste. Cheikh man gis nga li sam problème muy lu injustice du ma ko def. dafa am lu tubaab di wax le premier l'ennemi de la nation c'est la c'est l'injustice waaw l'injustice boobu dafa mujj ci wàllu mbirum pratique bii ñu nekk ci wàllu justice mhm, mhm. yaa ngi dégg bu baax dafa am loo xamante ni bi da ko njëkkee ci ci alquran dañ tënku ci diine mhm. gis nga bi ma la waxee léegi ma ne la nit ki am na fu koy alquran di toll ci moom mu munu cee def xaraf yàlla nangu ko waaye am na nit ki martaba bu yàlla def ci moom benn araf bu ko bindee yàlla faj aaju mbir nit nit kooku mhm. moo tax ma wax la ma ne la parfois am na koo xamante ni bi léegi naa la am na ci sëriñ soo xamante ni xamuñ ñoom ci ban domaine sëriñ la ñuy ñaanee mu soo dem ci sëriñ boo xam ne nga posé ko sa problème mu ne la mënuma ci dara xaw ma ko waaw c'est ça la vérité d'accord léegi nag ñun mhm. est que ñun ñoo war a jël suñu matukaay ci loolu parce que ñun li ñuy def fexe nañ ba ku ñu ñi ñu jëflante woon pendant vingt ans ba léegi ñu ngi jëflante ak ñoom vingt ans laa la wax. d'accord loolu xam naa ko. xam nga xam nga man xam naa la yow. li tax nga ñëw fii nee naa la man xam naa ko. xam naa la mais fi nga toog nii da nga fiy nekk làmmiñu ñeneen sëriñ man ma nekk fi làmmiñu population sénégalaise. d'accord tey. noob yow boo ko doom defar ginnaaw danga nga cee aay trop tam dara mënul fexe ba doo def mhm. da nga koy def da nga mhm. cee mhm. ban noob ngay defar man ay kurus la wala ndox mu muy naan la ba da koy jël def ko sa awra diw ko sa awra xaw ma jox ko mu lekk mais nañ waxante dëgg rek loolu moo fi am loolu ngeen ñuy def loolu la sëriñ yi di def non li ngay def si si affaire na ko dem euh, raxas sa awra bi def ko ci soow jox ko mu naan loolu ngay xam ne dañ koy raxas ci awra am koy def waaw d'accord waaye loolu bu fekkee ne lu ñuy def ci arwala rek génn nga ci wàllu xaqiiqa ci wàllu lu ñuul ngay dugg waaw waaw ah, kay dama la wax léegi ma ne la alquran amul danger bu ci ne man tey jii ñeme naa bind alquran ci noob jox ko nit mu naan ko wala ma jox ko nit mu ne ko demal nga def ko ci bërëb sàngam waaye kanta jël saafara ne raxasal sa awra non non kooku après alquran lay jéppi mm-hmm. Mm-hmm. parce que li tax ñu ne am na awra yoo xamante ne bi sobe ngi ci awra yëpp sobe la te alxuraan soxlawul sobe mm-hmm. lu soxlawul sobe nag yow sa conscience mën laa may nga yëkkati nit koo xam ne am na jafe-jafe yëkkati nga ne la demal nga def ko ci sa awra jox nangam imagine toi mën na laa rey sax ah non maanaam parce que dégg naa am na noob yoo xam bu fanaanee boo ko lekkee dee musiba la loolu ci noofu sunguf lay doon sunguf sunguf am na ci noob yoo xamante ne bi ci ay jat lañ koy def def ko ci sunguf léegi nag sunguf dama wax ma ne la am na ci doomu aadama yoo xam ne seen seen deret dafa woyof mënuñu jël sunguf mu ñu jël reet mënuñu jël xas xam nga lu ñu war a jël plank plank boobu nag pour ñu ci bëri dañ ci cee wutee xamuñu heure buñ ko war a liggéey ak buñ ko warta liggéey waaye am na koo xamante ne bu ñëwee boo bindee turam boo xamee ne boo yow boo bindee turam dangay xam ne kii deretam dafa woyof hmm. mooy wala dafay dégager chaleur tout le temps ñu naan la danga nga amee tàngat hmm. kooku waroo ko jox sunguf bu weex mu naan d'accord d'accord naa kilifa gi